الدادين

sëriñ bi sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour nee na mi ngi mi ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na gannaaw bumu ubbe ubbee kàddoom ci sant yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na teg ci nag ni wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na tey mu ñëw Touba bokk ak lee yéen lii fi xew ñu bokk ko te mënuñu koo séddoo nee na muy lenn loo xam ni dafa dal ci kaw ñépp nee na yàlla dogalit ñun ñu am ci ñaari cër nee na bu jëkk bi nee na dafa mel ni moo jiitu bi ci des ndax ak bokk fa ko yàlla tudde yàlla tudd fa woon diine ak bokk rekk la fa tuddoon nee na bi ci des diine la ay bokk bu lu mel ni xewee ci ñoom kenn ku ci nekk am nga ca wàll goo xam ni yàlla moo la ko joxal boppam nee na kii fi jóge tey ca ngërëmal nekk tey ca ngërëmal yàlla. di Serigne Sidi Mokhtar Mbakke. yàlla dañ di ko yëkkati yàlla bu yàlla dañ di ko yëkkati ca barzaxam. nee na Serigne Sidi Mokhtar ku yàlla baaxaloon la. baax goo xam ni nag ñëpp seede nañ ko ko. nee kooku nag. réew mu mu bàyyi ko. réew mu mu bàyyi ma yëpp lay daal di demal. bokk na bokk gi itam. bokk yëpp la gi yëpp bokk yëpp la demal. waaye li ëpp solo na waaye nag li ëpp solo yooyu yëpp. te mu taxawee woon ko. moom sëñ Sidi Maxtaar. moo doon na moo doon diine nag. taxawu diine. taxawu diine. ci jëf. ak ci jikko. nee na yàlla nag dogal li ko soob nee na li ko soob nag moom yàlla moo di moom la sooboon moom yàlla mu indi fi sëriñ Sidi Maxtaar te ba mu koy def tàgguwul kenn moom la soobit moom yàlla mu jëlaat sëriñ Sidi Maxtaar te ba mu koy def tàgguwul kenn nee dañuy wax ni lillaahi ma ata walillahi maa axad nee na kon loolu rek moo fi xew waaye sant yàlla nag ndax képp ku yàlla bind sant la nga dee ca waar wa santal sa boroom kon ñun ñépp sag la ci ñun dem na waaye gàcce amul nee dafa am génn góor nee na ñu tàggee ko mam Sidil Hadji Malick mu ni waay ndokk ah, ñu ni ko yow ñu tàggale kilifa nga teg ci ndokk mu ni waaw ndax kilifa bu fi nekkalee yàlla ba jóge fi te dara tilimul ndokk dem gi wàññiwul dara nee na kon loolu rek moo fi xew waaye sant yàlla nag ndax képp ku yàlla bind sant la nga dee ca waar wa santal sa boroom kon ñun ñépp sag la ci ñun dem na waaye gàcce amul